bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala yi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziara di leen ndokkeel ci première fanu koor bi nga xam ne ci lañ nekk ci sant bu baax tey ñaanal mbokk yi nga xamante ne ñoo baaxoo di seetaan ndakaar Buzz di leen ñaanal yàlla na yàlla suñu borom nangu seen koor te nangu suñuy koor te jéggal ñu suñu bépp bakkaar ñu dugg ci weer boo xamante ni weeru xéewal la ñu ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ñu génn ci ak jàmm ñu ci gën a soññee bu baax rek comme ñu ngi ciy fan bu njëkk bi ñi nga xamante ne ñoo ci dugg nañu fexe ba continuer ko ndax continuité moo am solo ndax al umuru fil bi mbir yi ma nga ca mujj niñ ko waxee saytaane nag toujours dangay dégg ko naan la saytaane bu weeru koor jotee dañ koy tënk waaye kenn ku nekk na sa ngëm yàlla tool rek noonu la sa saytaane di tënkoo ndax am na ñoo xamante ne teewul weeru koor ña ngay fo di caaxaan bu boobaa seen bànneexu bakkan moo leen ci yóbbu ndax léeg-léeg nit dana def dara jiñ ko saytaane fekk bànneexu bakkanam la kon ku tàmbali koor na nga fexe ba continuer ko te ñu ngi soññee bu baax a baax ci naafile yi naafila dafa nekk loo xam ne ci koor bu ko koor gi amul dafa mel ne danga tabax sa kër benn bassin ba pare te defoo ci ndox bassin nag bu nekkee ci kër te amul ndox yaakaar naa du am njariñ moo robinet bu nekk ci kër ndox ñu am njariñ naka noonu teen bu nekkee ci dëkk te amul ndox kenn ci mën a naan kon julli dafa nekk loo xamante ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala daf koo farataaloon ci ñun avant koor di ñëw naafila nag du farata waaye sunna la waaye koor bu amul la dafa mel ne jëmm joo xamante ne amul bopp kon na xam ne doomu aadama boo amul bopp kenn dootu ko tuddee mën a tuddee doomu aadama kon naafila gi sunna la nañ ci bàyyi xel bu baax te gën cee farlu naafila googu am na secret yu bëree bëri yu ci nekk naafila dafay dindi stress ci nit naafila dafay dindi xat-xatu te li may wax da ngeen ci bàyyi xel bu baax képp koo xamante ne da nga nekk ci ay jafeñ-jafeñ àddina wala nga nekk ci ay xat-xatu xol ba àddina xaw a xat ci yow del dem ca mbooloo ma di fa naafila ji boo ko dee def da nga dem ba mu yàgg nga seetlu bu baax a baax ne loolu mi ngi dañ ci yow ndax julli ci mbooloo suñ borom subhaanahu wa taala looloo tax mu santaane ñu ko ndax leçon bi ngay am ak nit ñi dafa am lu muy dindi ci yow moo tax mu wax yonent bi ne ko julli foo ko mën a defee baax na nag waaye war ma warka'u ma'a ne boo julli na nga dem ànd ak nit ñi nga julleelu ak ñoom benn bi des mooy naafile dana dindi mbañeel ci doomu aadama danga gis ñoo xamante ni dañu bañante woon lool waaye dañuy dem ba tasee ci jàkka ji dafa naafil la ak dafa julleendoo farata bu yàggee day dem ba saytaane day dañ ci ñoom bañal gi ñu bañante woon day dañ naka noonu ki nga xam ne dafa nekk ak soxnaam ci biir këram di jullee ak moom bu jullee ba pare am tàllal ko loxoom mu ñaanal ko loolu secret bu rëy def cee nekk mooy day tax mbañeel gi newut ñoom mooy albuxd wala yaqadu da koy dindi kon loolu yaakaar naa lu gën a mat a farlu yi nga xam ne dañoo nekk ci seen kër te ñoom ak seen borom kër ñu am ay coow di am ay wuute nañuy fexe ba di julli ci seen gannaaw borom kër di jotee di di julli ci seen gannaaw borom kër te ñu paree ñu ñaanal leen naka noonu góor bi nga xamante ne moom ak soxnaam bëggante nañ nekk te jàmm boole leen waaye yàlla suñu borom boole seen diggante ñoom ñaar nañu fexe ba di ànd di naafila koor gi di ñaanalante boo ko defee loolu dana dindi mañeel ci ñoom benn bi ci des mooy naafila dafa nekk loo xam ne dafay dindi feebaru yaram yu bëri ba daf koy dindi ndax ku ne xam ne na julli boo koy def sa articulation yëpp da ciy sa genou day laal loxo yi dafay laal ba ci bët ak bakkan yépp dafay teg ci suuf sa tànk yi say baaraam lépp dana tax booyam boo amoon tànk yu metti ba faral di taxaw naafila suñ borom subhanahu wa taala da koy dindi ci yow feebar yooyu yëpp da koy dindi naka nga xamee dafay dindi dënd bu xat mooy ki nga xam ne xolam dafa bon fu mu toll day mer fu mu toll day bëgg di wéet day faral di naafila rawat na sax njabar sax naafila da koy dindi koo xamante ni yaramam dañ ne ko kat yow dañ la liggéey fenn fu ne dem na fa wu mu ta saafaraw na faral di fi la bu ko dee def suñ borom subhanahu wa taala daf koy dind ci moom ndax asalaatu nuurun julli leer la bi ñu gën a soññewaat ba tey mooy ñu fexe ba weeru koor wi nañ ciy tabe tabe mooy lan mooy nañuy gën di joxe suñu alal ci weeru koor ndax saxaaba yi soxna Aïsa nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku tabe woon la ku mënoon di joxe alalam la ku yéwenoon la waaye dañoo seetlu ne bu koor daan ñëw dafay dem ba ni mu doon joxee day mel ne ngelaw mooy xëcc alalam di ko yóbbu day joxe ba du dese dara kon nee na yonent bi saa sallam ku yéwénoon la waaye ci biir weeru koor la daan gën a ne moo tax moom yonent bi saa sallam wax ne képp koo xamante ne ni dogloo nga aji koor aji woor donte benn tàndarma nga jox nga ko jox mu lekk ko kookee lu ko yàlla fay ci kooram bi da nga am lu toll noonu ci tuyaaba te du wàññi ci yow sa yool dara du wàññi ci ab yoolam dara kon yaakaar naa loolu lu mat a bàyyi xel la xëdd dafa nekk loo xam ne sunna la yonent bi sallallahu alayhi nee na woon na ngeen di xëdd donte benn tàndarma nga yeew lekk ko na koy def tooru xëdd boobu comme na ma ko soññee woon dafa nekk waxtu woo xamante ne waxtu ijaaba la mooy suñu borom day wàcc ba ci asamaan yu mujj yi di wax ne kuy jéggalu ma jéggal la waaye ku ñaan ma may la kon xëdd nañ ko bàyyi xel bu baax du lu ñu war a caaxaane am na nag luñ ca sib mooy que ne nga xëdd ba boo tëddee la ngay lekk di jaar say bakkan sax wala mu dem ba la sonal di la xerñeñ loola moom sib nañ ko ci ab jullit ndax jullit dafa war di lekk lu yem comme ni ko yonent bi waxee ne nahnu qawmun la naakulu hatta najua wa ida akalna la nashba li ñu war a gën a moytu ci koor tam mooy waxi caaxaan ak waxi mbóosóor nit ki bu wooree war na fexe ba yar bakkanam ci bañ a bàyyi jëw comme ne bu dul koor sax daf ko war a bàyyi waaye nag koor daf cee raw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne man lam yada xawla zuuri wala amalu bi fa laysa lillahi xaajatan fi an yada taamahu wa saraba ku munul mënoo bàyyi fen mënoo bàyyi jëw na nga xamante ne yàlla suñ borom soxlawul sa xiif waaye soxlawul sa mar kon lu yaakaar naa lu mat bàyyi xel la bu ko defee am na ay question yoo xamante ne rot na fi tam danañ ko tontuwaale kii dafay euh, wax ne moom day woor waaye léeg-léeg dafay jaay ci barab yoo xamante ne barabu caaxaanukaay la xëy na mën naa am muy jaayee ci tefes gi tefesu géej gi walla yu demee naka noonu dafa gis ñoo xam ne bokkul ak ñoom diine ñuy sëmmi seen yére ñu koy wax ne loolu dañ koy sib moom ci mu xool lu bon waaye nag du xaraam ci moom ba yàq kooram àggul ci yàq kooram nag waaye sib nañ ko ci moom kon bu amee feneen foo xamante ni mën na faa fréquenté wala mu mën faa féexaloo wala mën faa jaayee fu dul foofa na fa dem bu fekkente ne nag foofa rek la am nag bu ko defee ad-daruraat tubihul ma'duraat dañ koy wax ne ko suñu borom subhanahu wa taala ci yërëmam daf ko koy jéggal di ko wax ne lu ñu siblu ci moom lu ci mënti am rek na fexe ba yar bakkanam waaye loolu àggul ci yàq kooram kii tamit dafay laaj ne moom dafay woor waaye du julli dafay woor waaye du julli kooku lañ koy wax ne ko mooy kooku ku sàggan la ndax borom Axdari yi dafa wax ne képp koo xamante ne faat nga waxtu julli te feebaroo ba mënoo julli wala nga fàtte ko nee ne def nga bàkkaar bu rëy rëy te nee na kooku am naafiq la te naafiq li ci suñ borom subhanahu wa taala wax mooy nee boo demee safara naafiq yi ñooy féete ca suuf naka noonu mi ngi mel ne boo doon togg ceeb ni xooñ di féete ci suuf gën a jege safara bi ñi nga xam ne naa ñooy naafiq yi ñoom dañuy nekk ca téex ba ca suufu safara kon yaakaar naa loolu munta ànd ak koor gu baax ndax julli moom la njëkk a farataal kii nee na moom dana julli waaye dafay boole julli yëpp ba ngoon jot rek mu julli ko kooku tamit li muy def lu ñu xaraamal la ci moom julli kenn ko boole waaye waxtu wu jot dañ ko war a julli ndax waxtu wu nekk dafa am heure buñ ko dateel mu moom ko ndax alquran dafa ci wax ne inna salata kanat ala al muminina kitaaban mawqutan ki tamit dafa wax ne moom day julli day woor waaye danaan damaa woor rek mais dafay sàcc naan loolu dañuy wax ne lu xaraam la ci moom ndax ñaar la boole boole na nax boppam ak fenloo nit yi ba noppi fobe suñ borom la kon loolu bàkkaar bu rëy rëy la te bu tuubul ba faatu suñ borom subhanahu wa dana ko dugal safara kon xam naa ne yooyu ma question yi nga xam ne jot naa rot in uridu illa al islaha mastataxtu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh